asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a koy ànd ak QTV rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ñoo topp si radio bi di téeméer ak ñett yu toftal ñett ak ñi nga xam ne saa su nekk ñu ñoo topp si social media bi ñu andi leen xibaar yi digg bëccëg bi ngeen ànd see seen doomu ndey ba Bassène Lom si boppi xibaar yi di ngeen dégg nag niki londi bi ñu génn nag moo doonoon. ab bés bu ñu xamee si International Women's Day mu doon ab bés boo xam ne nag dañu koy faral di màggal at bu nekk si àdduna bi lii nag waraloon na ministre bi nga xam ne nag moom leen dénk wàllum ndaw yi si biir réewi Gambia ni kii londi bi ñu génn nag joxe neen ab chèque bu yemoo si benn million yi koppari réew mi pour ñu jàppale lu toll nag fukka ak juróom benn jigéen maanaam seen i kafo yi ba tey si boppi xibaar yi di ngeen dégg ab liggéey boo xam ne nag dañu ko ràññee si ay góor ne naam sa am na jigéen yoo xam ne nag jamono yi soobu neen si liggéey boobu noonu ba tey lu mujj si boppi xibaar yi di ngeen dégg ki nga xam ne nag mooy ndem si yàlla laamin Tunkara moom nag jabaram teewoon na sa si di nettali gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi ëmboon ba diis naka la ñu arrêté woon kooku nga xam ne nag mooy jëkkëram mbokk yi ak yeneen xibaar si gannaaw bàkk bi lay doon ñu andi si ab yaatal mbokk yi comme ni leen ko junjalee si boppi xibaar yi at bu nekk nag si weeru màcc yu amee juróom-ñetti fan dañuy faral nag di màggal bi si jigéen yi ñu gën koo xamee si International Women's Day lii nag waraloon na ministre bi nga xam ne nag moom leen dénk wàllum ndaw ñi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi moom nag génne woon na ab ceek bu yemoo si benn million yi koppari réew mi pour jàppale ko jigéen yi nga xam ne nag ñu ngi am seen kafo yi te it ñu toll woon si fukki jigéen wala ñu toll woon si fukki kafo ak juróom. International Women's Day mu doon ab bis boo xam ne nag dañu koy faral di màggal si àdduna bi. di gëstu jigéen yi nag seen taxawaay moo xam nag si wàllum koom-koom la wala loolu nga xam ne sax mooy suñu aada ak cosaan ba tey it ñu si dee gëstu lu jëm nag si wàllum politique. ak seen nekkin si àdduna bi at bi bàkk bi nga xam ne nag moom leen tànn pour jagleel ko International Women's Day doon na nag jigéen yi nga xam ne nag ay kilifa leen te it ñu nekk ca kanam lii nag waraloon na ministre bi nga xam ne nag moom leen dénk wàllum ndaw yi si biir réew mi dal di màggal bés bi nag pour jàppale kafo yi nga xam ne nag ñu si biir réew mi nag tey yëngu lu jëm si wàllum julla te it ñuy jànkuwanteel ay jafe-jafe rawatina nag si jamono coronavirus bi ñu toll. moom ministre bi di uyoo si Fatoumata Kinte moom nag bu muy garal ay kàddoom nee na nag bés bi lu am solo la na dinay tax nag ñuy gëstu jàmbaar yi nga xam ne nag ñoo si àdduna bi rawatina ñi nga xam ne nag ñoo nekk si biir réew mi liggéey yi nga xam ne nag ñu ngi koy def pour indi ab yokkute si biir réewi Gambie moo xam nag na jigéen ba mu nga sa office yi toog si ab bitig di jaay nekk si biir marché bi wala sax nekk si tool gi di liggéey boko seet loo jigéen yi nakka si boor yooyu yépp lañu mune ba tey moom ministre bi di uyoo si fatumata kinte nee na nakka bi la mbir nakka laaw buur bi moo ñu ko jaglel pour nakka ñu mune boor bu nekk nee na bile mbir nag tax na mu ngi ñaax jigéen ñi Gambia ne saa su nekk nag ñuy continuer di def seen liggéeyu jàmbaar bi nga xam ne nag moom leen leen xamee ne boo ko seetloo sa bile yoon bàkk bi nga xam ne sax moomu la ñu tànn nag pour jagleel ko International Women's Day dafa tombe ak ñoom li nga xam ne sax ñu ngi koy def pour jàppale jigéen yi nga xam ne nag ay ndaanaan leen te it nekk si biir réew mi. ba tey keroog ba ki nga xam ne moy mooy le debi di jabari president Adama baro di uyo si Fatoumata Ba Barrow moom kero keroog ba garal na ay kàddoom ne nak yaayi yi ne ñu jàngal seeni doom yi waaye len tamit ñu matal seni janga, mo gën nag sa su nek ñu len di tela seylo way waaye ba Fatoumata Ba mu ngi ñaax askan gi saa su nekk nag ñuy déglu mbootaay bi ñu xamee si WHO nga xam ne nag ñoo amee lu jëm nag si wàllum wérgu yaram si àdduna bi ne kàddu yi nga xam ne nag saa su nekk ñu ngi koy wax lu jëm nag si feebar bi ñu koy topp waaye ba tey si biir réew mi ministre bi nga xam ne nag ñoom leen dénku wàllum wérgu yaram gi ñoom it saay bu ñu waxee nag lu jëm si wàllum feebari coronavirus bi ne ñu koy topp Diggy Saware chairperson National Women's Council moom it na ay kàddoom nee na nag kafo yi nag di mun di bokk si bile mbir faaw nag ñu bindu seen kafo yi si banque yi waaye ba tey ñu am ab mbootaay bu takku boo xam ne nag commencé na si juróom benn nit jàpp si ñaar téeméeri waaye ba tey gis ne tàggat nañ leen lu jëm nag si seen wàllum liggéey bi nga xam nag ñu ngi yëngu te bile mbir nag dafa nekk ñoom ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum jigéen yi si biir réew mi ñoo leen di jàppale si boobu la leen jàppale te it dinañ mun a topp li nga xam ne nag moom leen bugga bu ñëwee nag si seen wàllum liggéey gi keroog bés ba nag ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo bile koppar nag am nen yaakaar te it di wane seen kontaante si bile mbir gannaaw bi nga xamee ne nag jamono bi ñu toll feebari coronavirus bi nag jaxase na àdduna bi liggéey boo xam ne la dañu ko ràññee si ñi nga xam ne nag ñooy góor yi waaye nag jamono bi ñu toll ñu ngi see gis jigéen yi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour won góor yi ne nag lu jigéen mun wala pour won góor yi nag lu góor mun jigéen mën na ko. bile mbir nag dañu ko def ngir ne nag seen coobare la pour ñu dugg nag si liggéey boobu noonu lii nag doonoon na ay kàddu yoo xam ne nag moom ay Aysatu ak ñoñam garaloon leen ko sa kero bés ba bu leen doon laaj nag lu jëm si liggéey bi gannaaw bi nga xamee ne nag jafe-jafe yaa nga nag si booba la liggéey terewul jigéen ñi nag ñoom def neen seen kéemtalaay kàttan ba gis ne nag ràññee neen leen si liggéey boobu noonu ñuy def fii nii si réewi Gambia ñu gën koo xamee nag si liggéey maçon ñoom nag dem neen si bérébu jàngeekaay yi nga xam ne nag ñu ngi jàngal lu jëm nag si wàllum maçon pour nag am loolu nga xam ne nag mooy expérience waaye tamit am xam-xam si li nga xam ne nag loolu la gars yi di jàng pour rek ñu mën a def yooyu la liggéey si biir réew mi liggéey bii nga xam ne nag dañu ko xamee woon si ay góor nag di ko def si biir réew mi dafa mel ni nag jamono bii yooyu la kàddu nag ni ñaa ngi koy jéem a fàtte lii nag waraloon na jigéen ñi nag def seen kéemtalaay kàttan ba gis ne nag duggoon neen si wàllum maçon te it ñu kontaan nag pour bokk ak góor yi pour def bile liggéey. Aysatu nag kero bés ba garal na ay kàddu di wax nag ne moom yàgg na di liggéey ak Jaa waaye nag liggéey bi doon na ab liggéey boo xam ne nag saa su nekk mu ngi bàyyi xel ne liggéey bi di demee si boobala béréb li nga xam ne nag moo ma gën a jàpp si liggéey bi mooy dama bugga liggéey bi nga xam ne nag moom laa nekk di def te bi la mbir nag mu ngi am depuis bu ma nekkee ab ndongo daara gannaaw bu ma matalee sama jàng demoon naa yokk foofu noonu nag sa ay lu jëm nag si wàllum liggéey maçon pour nag am si xam-xam bi nga xam ne nag bu ma si sooboo dinaa xam lu may def ba tey moom Aysatu nag mu ngi gën di garal ay kàddu nee na ab liggéey nag boo koy def te ko day yomba ak yow. Fatou Sané moom it gaaroon na ay kaddu sa kero bis ba di wax nag jafe-jafe yi nga xam ne nag dina koy faral di jànkuwanteel waaye nee na nag si àdduna bi amut ab benn liggéey boo xam nag lu yomb ba tey moom faatu saane nee na nag saa su nekk nit ñi nag dinañ koy faral di wax de liggéey bi nga xam ne nag moom nga nekk di def liggéeyu góor la. nee na nag li nga xam ne moom laa dee faral di tontu gars yi mooy lépp loo xam ne nag góor koy def jigéen war na koo mën a def ndax li nga xam ne nag dañu koy faral di wax nag mooy fifty fifty maanaam góor def juróom fukka yow nga def juróom fukka lii nag indi na ab kontaante si liggéey bi nga xam ne nag maa ngi koy def. Aïssatou Touré moom it nekkoon na ab jigéen boo xam ne nag garaloon na kàddu si kero bés ba di wax nag lu jëm si wàllum maçon nee na nag bokkutoon si ab xelaatam ne moom nag dina liggéey lu jëm nag si wàllum maçon nee na nag dama commencé bile liggéey ngir kii nga xam ne nag mooy suma papa ndaxte moom nekk na ab nit koo xam ne nag dañu ko ràññee si liggéey maçon te it doonoon na ni koo xam ne saa su nekk mu may puus lu jëm naka si liggéey maçon te comme naka dama ko jege lool mujjee bi naka ma commencé naka di am interest si bile liggéey noonu laa commencé naka bile liggéey ba jamono bi ñu toll jafe-jafe yi nga xam ne nag mooy jigéen yi nga xam ne nag ñu ngi yëngu si wàllu maçon li nga xam ne nag moom la gaay dee jànkuwanteel ñi nga xam ne nag ñoo leen war a jox bi leen liggéey pour nag ñuy sampa doon ne nit ñoo xam ne nag jàppalewul leen si boor boobu noonu te it boo ko seetloo fii si réewi Gambia bu dee téeméer la juróom fukki yëpp ay jigéen leen waaye nag ràññeewul leen si bile liggéey mbokk yi ba tey foofu noonu sa pencum TRRC ni ki londi bi ñu génn ki nga xam ne nag mooy jabari Lamin Tunkara teewoon na fa di nettali nag gannaaw bu mu biiree ba diis ñi nga xam ne nag ñoo pour jël si kooku nga xam ne nag mooy ndem si yàlla Lamin Tunkara si booba la jamono. nee na nag ñi nga xam ne nag ñoo ñëwoon jël si kii nga xam ne nag mooy Lamin Tunkara doonoon leen ay nit yoo xam ne nag soloon woon uniforme maanaam seen yére yi rek leen soloon dal di ñoo jël si kii nga xam ne nag mooy Lamin Tunkara. Adama Konte moom nag moo doonoon jabar si ki nga xam ne nag mooy ndem si yàlla Lamin Tunkara mu ngi doon nettali foofu noonu sa pencum TRRC ni nga xam ne nag noonu leen jàppee ki nga xam ne nag mooy jëkkëram nee na nag sa bés booba noonu moom ak jëkkëram nag ñu ngi doon ndeewoo noonu la téléphone am bi nag ringee di laaka angale waaye nag xamutoon booba jamono ki nga xam ne nag moom la jëkkëram doon waxal li nga xam ne nag dégg na ko si kàddu yi nga xam ne nag ndem si yàlla Lamin Tunkara mu ngi ko doon wax mooy ne nag maa ngi ñëw nee na nag si guddi googu noonu nag jëkkëram dellu si waatoon na si kër gi waaye nag bi yoon dafa am ñu mu àndaloon ñoo xam ne nag ñu ngi koo francophone waaye naka bu ñu duggee woon si biir néeg bu naka commencé woon ne naka di ut ay bagage si biir néeg boobu noonu ba tey moom Adama Konte nettali na si pencum TRRC ne kii nga xam ne naka mooy ndem si yàlla Lamin Tunkara doonoon na ni koo xam ne naka gannaaw bu ñu ko jàppee foofu noonu sa Banjul seen police station bi génne woon nañu ko foofu dal di ko yóbbu sa Kairaba police station ba tey moom Adama Konte mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na kii nga xam ne naka mooy jëkkëram yàggul lool nag mu xam ne dafa bokkoon si ñi nga xam ne nag ñu ngi waroon a bàyyeekoo foofu noonu sa Ghana dal di jël nag yooni suuf pour tukki si dëkk bu ñoo xamee Spain ba tey moom Adama Konte mu ngi gën di gaaral ay kàddoom ne ki nga xam ne nag mooy jëkkëram ñu gën koo xamee si Lamin Tunkara naroon neen koo béel nag foofu noonu sa bérébu àttekaay bu mag bi waaye nag dafa mel ni gannaaw bi nga xamee ne nag looyaam bi def na kéemtalaay kàttanam pour gis ne nag waroon nañoo béel ki dem si yàlla Lamin Tunkara dafa mel ni nag booba la mbir mujjeewut wuta sotti nee na nag bu mu delluwaatee si booba la béréb dafa mel ni nag booba la jamono kii nga xam ne nag mooy jëkkëram nekkutoon sa fi mu ko daan bàyyi nee na nag bu bile mbir amee nag si la kool kooku nga xam ne nag mooy looyaam bi ñu gën koo xamee si nen ne nag pour nettali ko li nga xam ne nag moo am si booba béréb waaye nag ki nga xam ne nag mooy looyaam bi di uyoo si nene moom nag daf ko mujjee xamal ne nag bile mbir nag jaaxal na ko lool si jamono bi ñu toll nu mbir mi di demee. ndax ki nga xam ne nag mooy ndem si yàlla Lamin Tunkara doonoon na ni koo xam ne nag bérébu àtteekaay bi ñoom nag nangu woon neen pour ñu bel ko ba pare kon nag naka la mbir mi nar a demee nii ñu toog rek gisatoon kii nga xam ne nag mooy ndem si yàlla Lamin Tunkara ba tey moom Adama Konte nee na ye yemul foofu noonu moom nag bu mu xëyee dem na foofu nga xam ne nag mooy maytu pour laajte mbiri jëkkëram ba xam nag téyewuñu ko si booba la béréb waaye ki nga xam ne nag moom la fa fekk xamaloon na ko nag mu toog ab diir bu gàtt bu boobaa nag dina seet ba xam ndax Lamin Tunkara mi le bokk na si kayit yi nga xam ne nag bind nañ seen tur noonu sa maytu ne turi Lamin Tunkara nag nekkul si suñu këyit bi daa mel ni nag moom Lamine Tunkara nekkul fii nii nga xam ne nag foofu nga ñëw di mayeltu ba tey moom Adama Konté mu ngi nettali foofu noonu sa pencum TRC nee na nag gannaaw bu ko yàlla mayee boppam maanaam gannaaw bu mu amee doom ba noppi moom nag tàmbalewaat na lu mooy utam jëkkëram gi ñu xamee woon si ndem si yàlla Lamine Tunkara waaye ak palaas yi nga xam ne yëpp jaar na fa pour lijjante ki nga xam ne nag mooy jëkkëram ñu xamee woon ko si laamin Tunkara dafa mel ni nag mu wutoon na dégg mbiri ki nga xam ne nag mooy jëkkëram di laamin Tunkara waaye ba tey nag nee na am na ab Ghanéen boo xam ne nag tase woon na ak moom mu uyoo sa matin moom nag neetali woon na ko ki nga xam ne nag mooy jëkkëram xamee ne nag noonu la ñu reyee jëkkëram waaye ak loolu yëpp amoon na si ñaari xel gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi topp li nga xam ne nag moo dee am foofu noonu sa pencum TRRC ñi nga xam ne nag ñu ngi leen gën a xamee si Jongulas di nettali ni nga xam ne nag noonu la ñu reyee woon ñi nga xam ne nag ñu ngi bàyyee ko woon foofu noonu sa Ghana ak yeneen i réew ne kii nga xam ne nag mooy jëkkëram ñu xamee ko si Lamin Tunkara bokkoon na si ñooñu nga xam ne nag faatoon nañ leen si biir réewi Gambia nee na nag foofu la xamee ne kon nak li ñuy wax ne sama jëkkër dañu ko faat ci biir réewi Gambia lu am la nee na li nga xam ne nag moom la soxla foofu noonu sa pencum TRRC ne ñu doxal li nga xam ne nag mooy ak justice waaye leneen li nga xam ne nag mun na koo teg si kaw loolu mooy nguur bi nga xam ne nag moo fi nekkoon ñu gën koo xamee woon si nguur yaaya Jammeh ñu ñu nag du leen mus a jéggal nee na saa su nekk li nga xam ne nag moom la doom bi dee faral di wax si noppam bi mooy ki nga xam ne nag mooy président yaaya Jammeh bu fi nekkoon moo ki nga xam ne nag mooy papaam. mbokk yi ba tey PDOIS ñu génn leen si doy ñoom nag ni ki dimanche bee ñu génn nag amoon nañ ab ndaje di waxtaan nag lu jëm si seen wàllum parti bi gannaaw bi nga xam nag am nen si réewi Gambie lu toll si ñetti fukki at ak juróom. congrès mu doon ab mbir moo xam ne nag parti dañu koy faral di am pour seen nag da dañoo war a def ab wécceeku wala sax dañoo war a bàyyi ki nga xam ne nag moo fa nekk lii nag waraloon na PDOIS ñu gën leen a xamee si doy ñoom nag ni ki dimanche bee ñu génn nag ñu ngi doon seet ba xam ndax Halifa Sallah la ñuy bàyyi si bopp bi wala dañu koy wécci pour élection bi nga xam ne nag ñu ngi see dugg si si atum 2001. gannaaw bi nga xamee ne nag ñu ngi doon wër ak seeni caravane ñoom nag mujjee woon nañ ñoo teew si ab béréb si ay waxtu yu néew. pour rek waxtaanee wecceeku yi nga xam ne nag am nañ yaakaar ne dinañ ko mun a def si biir réewi Gambia lu jëm nag si wàllum politique. Sidia Jatta moom naka bokk na si ñi nga xam ne naka ñoo taxawal parti bi ñu xamee si PDOIS nee na naka dañoo yàgg di xeex lu jëm naka si parti bu fi nekkoon ñu xamee ko si APRC si njiitali ki nga xam ne naka mooy président Yahya Jammeh ngir mitital yi nga xam ne naka ñu ngi ko doon teg si kaw doomi aadama yi. ne naam parti boobu ñu xamee woon si APRC ak seen njiit bi nga xam ne naka moo doon uyo si Yaya Jammeh at yi nga xam ne nag moom la ñu def si biir réewi Gambia doonoon na ab at yoo xam ne nag amalut askani réewi Gambia benn interest waaye xañoon leen tamit lépp loo xam ne nag bëggoon leen ko si biir réew mi. moom parti bi ñu xamee si PDOIS nag bokkoon nen si coalition bi nga xam ne nag dañu ko taxawaloon pour daan ki nga xam ne nag mooy président Yaya Jammeh bu fi nekkoon si booba la jamono. li nga xam ne nag mooy seen jubluwaay bi boobala la jamono ñoom ñi nga xam ne nag ñooy parti mooy gis ne nag nguuri Yaya Jammeh bi daanu na bërëm waaye ba tey parti bi ñu xamee si PDOIS si gàttal ñu xamee leen si doy ñoom nag gis ne ne nguur bi fi nekkoon ak nguur bi fi nekk si jamono bi leen li nga xam ne nag moo leen utale lu ndaw la waaye nag kero bés ba dafa mel ni nag ñoom sax nekkoon foofu noonu di def ab tànnatoo kan la ñuy jël nag mu doon ab kilifa si parti bi ñu xamee sa PDOIS li nga xam ne nag moo leer si boppi nit ñi mooy ki nga xam ne nag mooy Halifa sala ba tey nag moom la ñu teg mu nekk boppi kilifa foofu noonu sa PDOI pour taxawal leen nag si élection bi ñuy dugg si si weerum décembre atum 2021 waaye bi la yoon nag parti bi ñoom nag am neen gom-gom gi ne nag war nañoo mun a àgg foofu noonu sa State House mun a def yenn wécceeku yi nag sa biir réew mi waaye ba tey ñoom nag gaaral leen seen i kàddu lu jëm nag seen wàllum parti bi ne doon na ab parti boo xam ne nag xam ne li nga xam ne nag mooy seen axa ak seen i yelef waaye tam xam naka la ñoo mën a indi ab yokkute si biir réewi Gambia waaye ba tey ñoom it gaaral neen ay kàddu ñoom nag nee nañu di neen sacrifice li nga xam ne nag mooy seen life pour doomi réew mi ak réew mi si boppam moom Halifa Sallah nee na naam nag bu ñu ko tànnoon pour mu doon ab président maanaam pour mu toog si boppi réew mi dina bàyyi xel lu jëm nag si ay weer jàpp si loolu nga xam ne nag mooy benn at bu demee ba gis ne nag moom réew bi nga xam ne moom la ñu ko dënk munu see indi benn yokkute dina fexe daal ba kaatim ay këyit wane ne nag moom réew mi munu ko yóbbu ba tey moom Halifa Sallah mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na nag bu dara desul lu dul loolu nga xam ne nag mooy tuur deret war a sa di jàpp ay ni di leen ngir rek ne moom dafa bugg a nekk ab président kon nag nañu ko boole si ñi nga xam ne nag dañuy faral di def ab ñaawteef si seen réew waaye ba tey bu ñu yem foofu noonu bu dee am na ab médaille boo xam ne dañu koy takkal ñi nga xam ne nag ñooy def kati ñaawteef yi moom bu ko kenn romba ndax su boobaa nag mun nañ ko ci boole tey sa bés ba parti bi nag am na ñenn ñoo xam ne naka ñu ngi leen doon tànn pour naka jox leen ay place yoo xam ne am nañ yaakaar ne dinañ ko mun a yóbbu naka si biir réewi Gambia waaye ba tey it seet la ñoo indee ab yokkute lu jëm naka si parti boobu ñoo xamee si PDOIS si gàttal doy. ba tey keroog bés ba tànnoon leen beneen jigéen boo xam ne nag ràññee neen ko di yo si Aminata Koreta pour naka mu nekk ab député secrétaire général si parti boobu ñu xamee si PDOIS. PDOIS si gàttal ñu gën leen xamee si doy ñu ngi doon wax élection bi nga xam ne nag ñu ngi koy dugal si si weerum décembre si atum 2021 li nga xam ne nag dineen ko gestu mooy ñi nga xam ne nag ñooy béykat yi waaye tamit nekki ni askan gi doon na mbir moo xam ne nag dina bokk si li nga xam ne tamit dineen ko gestu waaye ba tey seet naka la ñoo indee ab yokkute si biir réew mi rawatina nag su ñëwee si wàllum li nga xam ne naka moom la ñuy ji si biir réew mi naka la ñu koy jëfandikoo bi nga xam ne naka dina njëriñ askani réewi Gambia waaye ba tey parti bi ñu xamee si PDOIS si gàttal ñu gën leen a xamee si doy ñoom naka pare neen pour indi ab yokkute si biir réewi Gambia mbokk yi dafa mel ni jamono yi nag congrès baa ngi tàng fii nii si réewi Gambia lii nag waraloon na beneen parti boo xam ne ñoom it génnoon nañ ni ki dimanche bi ñu génn nag pour tànn ba xam nag dañuy bàyyi kooku nga xam ne nag mooy seen kilifa bi wala nag dañu koy wécci parti bi nag ñu ngi ko xamee si Gambia Action Party parti bi ñu xamee nag si Gambia Action Party si gàttal GAP ñoom nag dajaloo woon ne ni ki dimanche bee ñu génn di dalal ñi nga xam ne nag ñooy seen am di jaama yi foofu noonu sa ab hôtel boo xam ne nag mu nga foofu noonu sa Sénégambia Gambia Action Party doon na ab parti boo xam ne nag mu ngi bindu si weerum janvier bu mu amee fukki fan ak juróom-ñaar si atum 2019. te it ñu ngi bindoo fi nga xam ne nag foofu la ñëpp di bindoo di ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum sànnum karta gi te li nga xam ne nag moom la gars yi wax maanaam ñi nga xam ne nag ñoo amee wàllum sànnum karta gi ñoom nag gis ngeen ne parti bi ñu xamee si Gambia Action Party doon na ab parti boo xam ne nag booba jamono lépp loo xam ne nag laajte woon neen ko lu jëm nag si mbiri kayit andi woon neen ko si bérébu sànnee kaay karta googu noonu parti bi li nga xam ne nag mooy seen bàkk saa su nekk nag ñu koy wax maanaam développement maanaam yokkute bu takku ànd ko nag ak jëf keroog bés ba nag gis ne ne nekkoon ne Gambia Action Party seeni nit ñi rek a fa toogoon waaye am na ñeneen ñoo xam ne nag boole woon nañ leen si booba bis bés ñoo xam ne nag ñu ngi si beneen parti ba tey bokk na si li nga xam ne nag waxtaanee neen ko ca keroog bés ba mooy parti bi ñu xamee si Gambia Action Party ñoom nag dinañ gis ne port bi nga xam ne nag mu foofu noonu sa Banjul dina am boo xam ne nag dinañ ko defaraat foofu noonu sa carton waaye ba tey duñu yem foofu noonu waaye ba tey dinañ gis ne defar neen ay por foofu noonu sa kawur ak base ba tey parti bi ñu xamee si Gambia Action Party si gàttal ñu gën na a si GAP ñoom nag wax nen ne dineen jël loolu nga xam ne nag mooy airport bi nga xam ne mu nga sa Banjul dal di defaraat beneen foofu noonu sa jaara sooma waaye nag dineen defor ab yoon yoo xam ne nag train yi yaa koy jëfandikoo dineen dolliwaat loolu nga xam ne nag mooy ay yoon waaye ba tey dineen seet naka la ñoo gëstoo nag lu jëm si wàllum dembeek dikk bi waaye ba tey Gambia Action Party ñu gën leen a xamee si GAP ñoom nag dineen sampa ab airport foofu noonu sa base waaye tamit yokka airport bi nga xam ne nag jamono yi moom la ñuy jëfandikoo ba nga xam ne nag dina mun a wàccee lu toll si ñaari millions yi nit. jokkalante bi nga xam ne nag dañu koy faral di am nag si wàllum téléphone yi dinañ gis ne nag taarif boobu noonu tamit wàññi neen ko. waaye ba tey dineen gestu ba gis ne naka lu jëm naka si wàllum néegum luwaas naka la ñu koy wàññee waaye ba tey dineen gestu si nit ñi nga xam ne naka ay benn benn nit leen te ñuy faral naka di yëngu lu jëm naka si wàllum fayam luwaas nee na naka ñoom naka bu ñu paree dineen gis ne taxawal leen ay compagnie yoo xam ne naka loolu mooy nekk seen i liggéey lu jëm naka si wàllum néegum luwaas ak yeneen i mbir yoo xam ne naka dineen si indi ab yokkute si biir réewi Gambia Moussa Yali Bathily moom nag doon na ab kilifa boo xam ne nag moo jiite parti bi ñu xamee si Gambia Action Party nee na nag mu wane am kontaanteem gannaaw bi nga xamee ne nag bési tey gi doon na ab bés boo xam ne nag demee na si nu ñu ko buggee. ba tey moom Moussa Yali Bathily moom nag gëm na parti bi ñu xamee si Gambia Action Party si gàttal ñu gën leen a xamee si GAP doon na parti boo xam ne nag ñoom nag gëmun li nga xam ne nag mooy coalition pour rek win loolu nga xam ne nag mooy election na parti bi ñu xamee nag si Gambia Action Party doon na parti boo xam ne nag nekku ne dafa war nag pour ñu bokk si ab coalition xanaa rek ne laaw buur bi dafa d'accord ne faaw ñu bokk si ab parti waaye bu nekkul loolu Gambia Action Party doon na ab parti boo xam ne nag ñoom dinañ mun a taxawal seeni bopp nee na gom-gom bi nga xam ne nag seen parti bi am na ko mooy parti bépp boo xam ne nag mu si réewi Gambia war naa mun a taxawal boppam te it boobaa war naa mun a gañal boppam ba tey sa congrès bi nga xam ne nag amoon nañ ko foofu noonu sa Sénégambia ki nga xam nak moy Tamsir Jasi, mom nak dafa melni dañu ko ci si am bi nga xam nak mom lañu ko joxone mu doon a parti national président ba tey si keroog bés ba ñoom nag joxe woon benn nit koo xam ne am nañ yaakaar ne moom nag la ñuy dënk loolu nga xam ne nag mooy seen flag bi pour mu jàpp ko waaye li nga xam ne nag leer na si boppi nit ñi mooy nag ki nga xam ne nag moo war a jiite la parti bu waxtu bi jotee nag di ko announce. mbokk dafa melni waktu meyon la ñu waxtu mayon ñu ngi leen di gërëm di leen sant si anda bi nga xamne sa su nekk yi nang koy ànd ak tv rawatina ñi nga xamne nak ñoo ñoo topa si radio bi di témer ak ñetta yu toftal ñetta ak ñi nga xamne sa su nekk ñu ñoo topa si social media bi ñuy gërëm ñi nga xamne nak ñoo fare won si walu masen gi ak ñi nga xamne ñoo japon si xibaar yi ba mu soti yalla ñu yalla xir si bopam jéggal ñu suñuy bakkar musal ñu si musiba ak bala be elexi ben waxtu gi inshallah 你有耳朵吗？